làmb ji ubbi na bari na combat yoo xamante ni actuellement nii euh, taxaw na bari na ay combat yoo xamante ni war naa mën a sotti yu mel ne ay mu ngi war xamante ne mooy Papa Sow Garga 2 Mama Lamine euh, actuellement nan nga gisee saison bi actuellement ni ni mu commencé nan nga ko gisee. waaw làmb ji liñ ci gis dañuy ñaan yàlla rek mu continuer ak jàmm parce que ni ku nekk ca la nga nekk ca nga yaakaar. donc mbëri ca luñ nekk noonu loolu lañ yaakaar kon dama leen si ñaanal yàlla mu sax ñu ci amagul combat yàlla may leen ci komba ku ci mel ni euh, kii bébé jën caabi féete ko ginnaaw moom it fàttewuñ ko benn yoon parce que bu ñuy wax làmb rek si làmb la bokk mm. ku mënoon li muy def la bëggoon ko loolu itam ku daan neexal làmb ji la kooku it ñu koy ñaanal fàttewuñ ko ndax ku ne làmb rek boole nga ko ci ñu ngi koy ñaanal ci yàlla bu baax a baax a baax a baax foofu mu nekk yàlla suñu borom bi jëlee ko fa si ko ba mën a delloo si si métier mi nga xamante ni mooy làmb ah, Bébé Saloum yëpp ñu ngi leen di ñaanal Saloum moom it doomi Saloum la comme man mm. waaw di ko ñaanal si yàlla foofu mu nekk yàlla jëlee ko fa delloo ko si bërëbu liggéeyukaayam waaw.